ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy. ñu jox kàddu gi alxaaji Serigne Saliou Guèye Badar. bismillahi rahmaani rahim naa bala ñuy sori ci kàddu yi li ñu njëkk a def mooy ñaanal koo xam ni jàmbaar la woon ci alxaaji sëriñ géey foo ko mos gis gis ko fa mu bëggoon ko lool fonkoon ko lool mu Serigne Dame Lo. bis bii bañ ko dana def ñun bañ juddoo ba tay fi lañ ko daan fekk mu ci ànd sëriñ bi gëmoon ko gëm goo xam ni meloon ci moom bëgg ko bëgg koo xam ni mosuma gis ku mel ni moom am na bis ma waxtaan banaa ko daam yo ba sëñ bi nekk daawoo sol mbaxana mu ne ma man kilifa du ma nekk mu di yor mbaxana ngan bi fi diiru alal sëñ bi di fi nekk mosu sol mbaxana bi fi nekk la commencé sol ak yeneen ak yeneen ak yeneen ku mel noonu nag bu fi bàyyi ko war na képp ku fi toog nga ñaanal ko ñu teelu ñaan suñu borom yokkay leeram te ci barkeem بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب mbokk yi ñoo ngi leen nuyu te leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mi fi tooge jotaab Cheikhul Khadim waaye noonu la ziyaara ki nga xam ni mooy kilifa ak bërëb bi di sëriñ Mor Talla Gueye Badar di ziyaara itam sëriñ Cheikhouna Gueye mi nga xam ni moo fi xalifa alxaaji sëriñ Gueye ak mbooleem kilifa yi nga xam ni nekk nañ ci baas bi gis nañ fi suñu waajur yu bari sëriñ Aliou géy ak kilifa yi nga xam ñu nekk ci baas bi ah, nun nag dañoo bëggoon bala ñuy wax bara na ñu ñuy laaj ci Badar ci cosaanu badar léegi rek ci ngoon kilifa ñëw na fa di ma laaj ci badar te jàpp naa lu bare bare xam na ko ci waaye dañ ma li nga wax tey mosuma ko fee xam nee la sëriñ kay doon wax na naan mbooloo bu ñëwee war nañ leen a wax loo xam ni boo liggéey ñu mën cee jariñoo fii bërëb la boo xam ni bërëb bu sëriñ Tuubaa fonkon la ki sañ ci barab bi ci gàttal rek mi ngi tuddoon sëriñ Habib Guèye ñu gën koo miin ci sëriñ Mayib Guèye sëriñ Mayib moom nag mel na ni barab bi da ko doon wër ndax sanc na barab yu bari waaye dafay jóge bàyyi ko fa dem sanc beneen barab def na ko Kajoor def na ko Njàmbur def na ko ci barab yu baree bari ba ci barab bii bi mu dikkee fi dafa wax ni fii laa doon seet bu ma fi jógee nañ ma sang ci ndox mi sul ma ci suuf si fii mooy sama mujjug sanc nekk fi di fi jaamu yàlla yu baree bari ci diggante bu mën nañ ñëw waaye ci gàttal rek sëriñ Mayib Guèye moom ku sëriñ Touba fonkoon la sëriñ Touba bind na ko ay leetari leetar yu bari la am na ci bu siiw waaye bari woon na sëriñ Touba daan na ko bind di ko laaj téere wala mu koy laaj téere sàngam fan la mën a nekk. wax nañu sax ñi sëriñ Touba mus naa ñëw ci cumbuleen gi ci benn sarax te sente feeg sëriñ Mayib Guèye sëriñ Touba laajte nii ndax sëriñ Mayib Guèye ñëw na fi ñu ne ko mi ngi ci néeg sàngam foofu la dal sëriñ Touba dem fa ngir ziar ko ba mu demee ñu ko génn mi ngi ci mbedd mi sëriñ Touba taxaw. ngir euh, xool ko ñu ne ko mu ngi nee di dem ànd ak ay taalibeem sëriñ ma sëriñ Tuubaa gis na pënd façon waaye gisu ko sëriñ Tuubaa nag nee na amoon naa yéene topp ko waaye suñ borom moomu aayee topp lu yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam sëriñ Mbayib moomu doomam ju ñu wax soxna Xadi Géey demoon na ci sëriñ Tuubaa di ko ziyaare sëriñ Tuubaa ne ko kuy sa waajur mu ne ko sëriñ Mbayib sëriñ Tuubaa ne ko sa waajur day xama xàmmeewoon naa ko ca xare Badar ba soxna Xari Gueye moo ko nettali Serigne Mor Talla Gueye mu nettali ma ko kon day mel ni tur yi mu doon tuddee barab du asaar ba tey tam Serigne mooy moo waxoon ak njabootam ni leen boo fi bàyyi ko leer gi nekk ci penku bi ni ngeen ko dem toppi muy Serigne Touba moo tax Serigne Omar Gueye jébbalu ci moom Serigne Mor Assa Gueye jébbalu ci moom Serigne Mor Alima Gueye jébbalu ci moom Serigne Moussa Alima Gueye jébbalu ci moom ak Serigne Mamour Dieng ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bokk ci barab Serigne Omar Gueye moom nag Serigne Touba defaloon ko lu baree bari mu mënoon koo liggéeyal lool sëriñ moo taal mi nettal ma ni ndaw yi nga xam ni ñoo daan yóbbu addiye yi ak ndaw yi nga xam ni ñoo daan wàññi ko dañuy tase lu mu am jox ko sëriñ tubaa nit jógee na fii dem jébbal sëriñ Touba sëriñ Touba ni ko looy wut njébbal xanaa Omar nekkul foofu xam naa kooku xam naa turam xam naa ay sëtam nit tamit amee na fi ay bor yu bari jaaxle ci gàddoo fi leetaram dem ci sëriñ tubaa di fa sàkku ndimbal sëriñ Touba bindaal ko ci leetar bi ni ko demal nga jox ko Omar seen i jàngoroog seen i yëpp moom laa leen mu bari woon mbooloo lool daan liggéey sëriñ Tuubaa mbooloo itam gàmmu Badar gii ñuy def sëriñ Omar gi moo ko sanc fii ci ndigalu sëriñ Tuubaa daan ko def mbooloo mi bu ñu daan daje fii di gàmm bu ñu xëyee danaa nañ xool liggéey bu ñu war a liggéey bu ñu liggéey ba noppi ba bëccëg mu doog leen yeewu ñu dem noonu la nekkee woon sëriñ Mor nettal na ma ni magam mbokkam ñoo soxna xari géey gàmm gi sëriñ Omar mujje gàmm fii dafa xool sëriñ Omar mbooloo mi mu ni lii day mënta yàgg dal maa gis sëriñ Omar ni mbooloo mi demee moom gàmm googu la mujj gàmm fii moom sëriñ a amoon ngërëmal sëriñ Touba lool sëriñ Mor Alima Guèye seedeel na ko ni mbooleem ko sa sa bokk ci tool loo fii ci catuwee sëriñ Omar Guèye ci daraja sëriñ Omar Guèye moomu mooy waajur sëriñ Mor Talla Guèye mi nekk ci biir dib xalifaam yàlla na fi yàgg loolu te wér bu ñëwee itam sëriñ Mor Assa Guèye alxaaji sëriñ Guèye baax na loolu waaye suñu borom day def lépp lu muy def da koy def ay sabab ala sëriñ Guèye fi rek ak ñi ko yar war naa tax mu mel ni mel sëriñ Mor Assa Gueye amul woon dara wutul woon dara bindee na fii ab kaamil dem xumaag jox ko sëriñ Touba maanaam demu gànnaaram itam du benn yoon dem na fay yoon yoon yoon am na boo xam ne daa jóge fi bind kaamil ba noppi daat ni danaa dogu ci yoon wi du ma wax dara lu dul tudd yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ko defee beeg xumaag jox sëriñ Touba kaamil ba sëriñ Touba bég ndax ku mënoon a bind lool la daal di woo waa kër ga tàngal warga daani warga wii képp ku ci naan nu ko gërëmee Mor Assa Gueye mii taxam ne tey moom laa gënale sëriñ Mor Assa Gueye moomu mooy waajur alxaaji sëriñ Gueye sëriñ Mor Assa moom itam ca gànnaar wax nañ ni benn bis néeg sëriñ Touba doon na fa tàkk mu nekk fa ca pëstéef ba ak dogu ko keroog dafa xëm sëriñ Touba daal di wax ni nañ ko sotti ndox te bu jigéen na ko ñëpp jox ko yére keroog jël nañ ko yére yoo xam kenn xamul lu mu toll sëriñ Mor sa moomu ba sëriñ Touba bàyyi ko dafa jéblu sëriñ Mor Moustapha sëriñ Mor Moustapha ak sëriñ Mor Assa nag wax nañ ni seenub xaritoo ak sëriñ Fàllu mi ñu tuddee bërëb bi ca euh, xumaa ca euh, gànnaar la tàmbale woon ndax alay sëñ Gueye daane nettali fii bay wax ci diggante sëriñ Fallou ak sëriñ Mor Assa Gueye sëriñ Mor Assa Gueye mooy waajur alxaaji sëriñ Gueye sëriñ Mor Assa jéblu ci sëriñ Mor Moustapha sëriñ Mor Moustapha at mi mu ñëw fii boobu la sëriñ Omar Gueye nelaw mu ñëw fii sëriñ Mor Taali moom nettali ni da leen wax ni leen yow ak sëriñ Taïba na ngeen sol ay yére moom sëriñ Mor Assa wax leen ko te ngeen ñëw ziare sëriñ bi biñu njëkkee mu ne ko sama mag ju baax ji di sëriñ Mor Assa ku fonkoon sëriñ Omar Gueye la képp kuñ ko mos a tuddee danaa buñ ko wax Omar nañ koy wax Serigne bokk na ci Serigne Gueye ñànk mi nga xam ne jàngal nañu bari bàyyam Serigne ma Samba Anta Gueye taalibu Serigne Omar Gueye bu mag la woon Serigne moo ni bu leen koy wax Omar di leen koy wax Serigne Gueye moom Serigne Gueye ñànk mi nga xam ne jàng nañu bari bari bokk nañu itam Serigne Badal Thiam xam ne ba mu fi jógee ba yàggul Serigne Morassa moo ne bu leen koy wax Omar bu leen koy wax Omar di leen ko loolu di wane ni mu ko fonke woon Serigne Omar jël doom ji di Serigne Mor Tall itam tuddee ko ko Serigne Morassa Gueye lañ ko tuddee keroog bi ñu dikkee Serigne Mor Assa dafa wax Serigne Mor Moustapha ni ko kii day sama mag yu baax ja ñoom ñaar ñi la fi bàyyi muy sëriñ Omar Gueye ak euh, muy sëriñ moor Talla mii ak sëriñ Taïba mii sëriñ Mour Moustapha dafa wax dafa wax ne leen boo leen jàppee ci seen waajur wii day jàpp ngeen ci man boo leen ko liggéey liggéey boo leen amee ngërëm am am ngeen am ngeen sama ngërëm sëriñ Mour Moustapha daana wax ni sëriñ Mor Assa lu mu wax maa ko wax ndax mos naa di fi jaloog gerte boo ndax moom bu daan bay ba noppi daana yéem ñëpp am na ñoo xam ne daan takkee saret fii ba ngaay ñëw di seet si tool sëriñ Mor Assa bi ren nu mu toll benn bis nag da tool bi dafa réelu ma kontaan daan képp koo xam ne wër nga jal bi sa yaram araam la sawara am koo xam ne nag dafa dem siñ mënu sa nek aw ah, mor asaral moom nag dafa xiir lool moom nee na gerte gam jal ku ko wër sa yaram araam la sawara suñ mor Moussa daan xanaa xamun kooku lu mu wax ko wax loolu di wane loolu suñ moodu suñ moor assa tuddee na doom soxna Jaara Buso tuddee na doom Serigne Touba ndax Serigne Gueye fi nekk Serigne Touba la tuddee Serigne Omar Gueye itam ab taawam Serigne Touba la tuddee mooy mag yi ñoom Serigne Mor Talla Gueye loolu di wane yàgg bëgg guñu yàgg bëgg sëñ Tuubaa yàgg liggéey guñu yàgg liggéey sëñ Tuubaa bañ fa jógee itam sëñ Mortaal moom nettali diggante sëñ fal bi ci ñëwaat moom nettali ni sëñ Fall bi mu ñëwee fii 1946 sëñ Mor Asta nelaw dafa wax ni képp ku toppoon Mor mais toppal Mor mi muy sëñ Mor Alima mu nekk fii sëñ Mor Asta sëñ Fallu dem na ba ci barabam bii taxaw daal di raay bopp ba ba ca tànk daal ni kuy actuel bi lii war na la sëriñ Alaaji sëriñ Dee tam nettali na ni sëriñ Mor sëñ ma sàmma sàmba mbàkke sëñ mu mosuñoo bokk ndab di lekk sëñ fàllu jekki-jekki daal di téye ndab la jug taxaw daal ne kenn ngeen bokkal sëñ morasen ko sëriñ tubaa ndax xam ni loolu yàgg yàgg te boobu sëñ mo sëñ tubaa sëñ fàllu nekk xalifa loolu di wane ne yàgg naa xam ne moom dana nekk xalifa sëñ tubaa sëñ morasen gi kon fii lu bare bare nag dañ lay laaj mel ni kon mbooloo maak yu ni demee waaye ci njëlbeen dafa mel ni booba sëñ Omar sëñ eh, Mor Alima mi fi nekk ak jota muyu ko ko nawet da daa nekk fii noor mu nekk ba ci yàgg mu mujj féete ci yeneen bërëb ñi nga xam ne ñoo fi war a moom yi dëkk bi itam nekk ci yeneen bërëb booba suñ war li may nettal boobu jamono neexiwut nii ñu mel na nag dëkk bi dafa raaf waaye booba suñ borom a ngi waajal mbër moo xam ni ñoo ngi koy dégg ca kawlax mu xëy taju tëju butigam bàyyee def lépp ñu ne ko looy def mu ni faj ajo alay sëñ ngee loo liggéey léegi mu ni faj ajo te boobu ma ngay jaay ak jënd ca jamono jooju la dem gaay ji soxna Aysatu Gaawaan Mbàkke di turandoo maam asu Gaawaan mais ñëw toog daane ko nag soxna Astou tey li ma la indi sër ci mooy wopp di fi waaye indi ma faj te keroog képp koo xam ne la ñoon na jug na ku tawatoon tawat yoo xam ne jàpp nga ne doo wér keroog jug nga mu ñëw ci dëkk bu daan ñëw ci dëkk bii dafa daan yenn ba ngoon rek mu dem yenn ba ngoon mu dem ba caang mu dem ni sëriñ moo taale géey mi fekk boobu ba nga tëngéej di fa yaxantu moom itam waa dëkk ba doyloo ko lool bëgg ko lool nga xam ne itam bëgg gi mu bëgg sëriñ alaaj sëriñ gi sëriñ alaaj sëriñ gi fekk fa ni ko damaa bëgg nga dem baral nekk ca dëkk ba mu bàyyi yitteem yëpp ñoo toog ci dëkk bi alay sëriñ ngay bëggoon ko lool alay sëriñ ngay dara ja jim amoon lépp bu ndékki daan jot dañ koy wooy fi mu dem sëñ moon ndékki ji bu añ daan jot dañ koy wooy fi mu ñëw fi añ bu ree daan jot noonu lay demee ngir fonkum fonkoon sëñ alay sëñ mortala daana wax ni mooy sama waajur lu bare bare ci man moom ko defal alay sëriñ ngay itam ñaar ñi yar ko mu nàmpee ci ñoom sëriñ tubaa ñaar ñoo xam ni kenn gën leen xam sëriñ tubaa muy sëñ moon alima gi sëñ musaa alima gi moo ba tey ki déggatoo ko fenn sëñ Mor Alima Gueye nee na ma sëñ Moussa Alima Gueye nee na ma nàmpatu sëñ Touba bëgg ko bëgg ko wér fees jël sëriñ Touba ñëw ci dëkk bi taal fi taal boo xam ni kenn mës a gis lu ni mel lu ne ma def ko fii luñ fekke jamono dafa toll foo xam ne yu bari dañu mel dañ koy fàtte léeg-léeg sa ngay wax nit alaaj sëñ gi man kenn dugg dugal naa son boo xam ni nit dani ma tey laay dugg dégg wax alaaj sëñ gi te ab taalibe la fii ci kër gi kon war na ñoo ñu xamu leen ji mu jooju mooy kan ku feesoon ci suñ suñ borom la bëggoon sëriñ bëgg goo xam ne ba tey man mësuguma koo gis sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jaral ko sëñ Mor Talla amoon rakk joo xam ni kenn amu ko rakk joo xam da nga naan ko damaa ndox mu taw ku am ñëw na fii ni sëñ Mor nu nawet bi def sëñ Mor na ko nawet bi da baax na Saliou Gueye fi la ko fekk ana fi la ko fekk ñun ñëpp la ñu fekk sëñ Mor na ko ah nawet bi da baax na waaye daal daa gëj a taw mun ne ko balaa fajara nga doyalum ndox engagement boobu la jël balaa fajara nga doyalum ndox alal sëñ gi taxaw fii di bàgg ba keroog dañu wol ko ne dugg ci saal ñun ñëpp mënuñ na ñëw dugg ci salle taxaw di bàgg di dem ak a ñëw di dem ak ñëw di dem a ñëw ba caag taw ba sëwit commencé taw am ku dawee fii ñëw ci néeg bi daa ne gone ñu leen jàppale néeg sëñ Mor ba daa wale te mu waroon ñaanum ndox nga ñoo ñëw di wax sëñ bi ne ko ngañ demal ci liggéey ba keroog maam gi mii ñëw na ni ko dañoo bëggoon njaay dem wutal ñu gaas yi benn ci dëkk yi ndax amatuñ matt muñ tax taxawee ala si ngay téye loxo ya fudd da ah yare yéen ma ñaanoon ndox de ah, yéen ma ñaanoon ndox xoolal loolu def yéen ma moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan taw mu taw kenn mënu ko alaay sëñ gi fii la nekkoon da ko daan def lu sëriñ moo taala bëgg mu defal ko ko bëggoon ko lool lu ne mu def ko ci dëkk bii samp gàmm gii nga xam ne sëñ Omar ko daan def alaay sëñ gi ko liggéey fi liggéey bu wér tax léeg-léeg nga dégg ku naan naa daa bàyyi nangam nga nangam alaay sëñ lu mu bàyyi woon boobu am na wërsëg boobu dem na màkka daataa muy def loolu dem na màkk lépp am na ko mën na ko fa ñug tey itam alay sëriñ mu Moussa am jóge fi sa doom doon la fii ci barab sëriñ Omar bi mu génnee jamono doomam matiwu ko ndax ay gone lañu woon sëñ Mor ba mu génnee jamono ay doomam ndax ay ndaw lañ woon alay sëriñ Gueye jóge fi bàyyi ñoom doomam ju mat sëkk muy suñu seexu naa moo ko Moussa am wax leen ma lool nag koo xam ne wàcc nga fi sa sa njaboot taxawal fi dara ñu mottali ko ci badar gii moo tax war koo ñaanal bu baax sunu sag la ñun ñëpp lu mu amoon rek bëgg sëriñ Tuubaa moo ko may mm-hmm. akuk dogu sëriñ gelaw Gelongal nettali na koo xam ne moom ma nettali nii alay sëriñ gi ñëw na ci dëkk ba kër bi mu dikkee dafa wàcc oto ba di dox ak tànkam ñu ne ko alay sëriñ gi xanaa dangaa fàtte sa dàll yi ci biir mun déet fàttiwuma ko damaa bëgg dëgg yi nga xam ni ñoo daan jam njabootu sëriñ Tuubaa gi sëti dëgg yooyu laa bëgg ñu jam yaa gëni baay gëni na jaay def la yaay yaa fi baay wallahi lii lu wér la sax sëriñ bi yaa mat waay yaa gëni baay gëni na jaay def la yaay yaa fi baay wallahi wax ju wér la sax وبالنوبة بني ماتي وبالنوبة بني خماتي جباركي باي نوراماتي مي أم سيفا وخرنوي وبالنوبة بني ماتي وبالنوبة بني خماتي جباركي باي nuramate mi am sefa xarnuy Aliou Guèye sëtub Serigne Mor Assa Guèye dëkkee Badar moo del si waat ngir fent way jugati naa ngir way fi mbër muñ wóolu ku ñëpp gëm kookaa di Cheikh Fallu Cheikh Fallu mi Daaru la feeñee moom Moustapha magam ji ñëpp ràññee gor suñu naa maam xaw bu soo di ndeyam Bamba di baayam réew mi ñëpp leen gërëm soxna xaya soxna xawa ndeyam ja daataa muy ñëw kër Cheikhi Bamba di fa sàkku aw yiw góor gu ñu naa sëñ Abdou Kumbaan Mbàkke ñang moo ko yoroon ku baax la woon daanañ ko rang sëñ Abdou Kumbaan làqu bàyyi ba jël ko jébbal ko Bamba ngir mu liggéeyal ko foofee la am sëñ Aafe ñang saay nopp mag la ci Cheikh Fallou mi ñëpp sopp Cheikh Fallou kii mooy kii mu bokkal benn ndey bokkuñu bàyyi wàllu la nag ñëpp la day danaa la wax ñaari ñu mu bokkal benn baay ak benn ndey ñoom ñëpp doon ay roy waay ca soxna Faati Mbakke laa koy jëkkee toftal ci maam Mariama Kunta Mbakke ñii ñaar la bokkal benn day ak benn baay moom Cheikh yi fan li ñu def suñu laquwaay ba mu matee daal alxuraan Cheikh Bamba moo ko dalal Touba woon dëkkam ba Bamba ko jàngal diir bu néew jébbal ko sëñ Abdourahman ngir mu ko Cheikh Bamba ba mu nekkee fa baari booba fàlloo ko woon al Moustapha kay taaw ba foofa ca Mbàkke baari sax la Bamba ba woon njabootam jépp dem Mayomba keroog ba muy dem Moustapha ak Cheikh Fallou ma leen joxoon ceeno rakkam jëm wóolu maam Thierno ak sëñ Abdourahman ba fa ndaam ñoo leen xamal ak kañu naa boroom saam seex bamba dem ñëw fekk leen ñu mokkal géeju ci xam-xam ku ko weddi gëstul seex bamba sant yàlla ak rasuulu béglal ci ñoom def leen itam yu mu wóolu fu ndaa fi ne seex Moustapha ak seex Fallu ña ca wetam ñu ñaan ñu jub te doylu seex bamba dem gànnaaru ab diir la fa dem ab diir la fa am ni nañ ko wol seex Moustapha ak Fallu rakam ñoom bañ demee la leen fa booleeg ay naar ñuy duy ca ñoom xam-xam yu cheikhul xadim bawoo fa gànnaar ñëw ceyeen indaale leen ngir sopp lool seenu doxin ceyeen la xëy bis woo rakam Masamba ak sëñ Momar roqee jarbaatam ba boole ca cheikhi Moustapha ak cheikh Fallu bamba nga naa leen may ki fi woolu man duma bàyyi duma ndijaay te duma mag fii lépp day jaay ku ci soxla indi njëg cheikh Fallu mii booba la jaay njureelam jëndee ko ak taalibe mel ni jaamam bi'tu bu nu watiyee bil irada lakum li koy axda bi foofa ci la seexi fàllu sampi kër doomi sëriñ ndaam lañ ko jox booba mu yor mooy soxna assuloo di ndaw ci soxna mbiyeen tawab sëriñ fàllu murit yépp ko miin ceen la seexi bam ceen la seex bamba tuxoo dem jurbel yóbbaale sëñ fàllu mi kenn dul sikkal seex fàllu njaareem la tuxoo dem ndindi sanc ko muy dëkkam di bay di indi te boole kook di jàngalee ko tërbiya bokkewul ak sëriñ sadaa tërbiya at mu ne daana bay bindaalib kaamilam boole ci hadiya indil ko baayam ñaar fukki kaamil ak lu topp cib lim bind na leen jox bàmba lii doy na ko ndam ba bàmba làqoo Cheikh Moustapha magam la jokk wékk loolu defoon ko sëriñam ba ñu liggéey jumaa ja ma ngi ko féete ndokk ca xeer ya duñ ko woo ba mu wute Cheikh Moudou bu sa taw ba ma ngi ko duppee Cheikh Moustapha day wane nam ko soppee taayif itam Cheikh Fadiloo joxew turam ci ndegalal Cheikh Hamdi Moustapha magam cheikh mu cheikh Moustapha ak alxaaji Fallu nañ meloon ku ne la yëm daa mel ni benn la woon ba Moustapha làqoo la cheikh yi Fallu toog doon xalifa xaadimu rasulu te booba réew mi ndóol na ngir guerre mondiale mu toog ci jal bi daal di man may Sénégal tàllal loxoom ni jiba muut dara déréet jàmm ni ñooy koll daal di kenn du tiit yeggale mboolem naa li Cheikh Bamba yam fi bool moo doon baatinam ba Cheikh Bamba yéen na woon na dem Madina ak Màkka ngir ziar ki samp diina yéen na koy at waaye buur dogalu ko loolu taxoon Cheikh Fallou dem ajali ko Touba dëkkub Cheikh Bamba bii tey nu mu mel war nañu santee ko ko ngir moo ko jagal bam toogagul daanaka rek dub dëkk amul yoon ba ko man fee dikk Cheikh Fallou moo nattul woon parcelles ya ali ñe leen jox mul saadix ya ñaar fukki junni parcelle ak lu topp nattoo li leen ngir bëgg a sédd moo yeggaleet jumaa ji def ci sooroor tuddee ko Cheikh Ibra wallahi mooy góor kem ñaari téeméer ak lu teg jiite na ko aljumaa ah, Touba door a dem bàyyee na ko ci ak ayam la tëli ñëw ci Touba ba woo fa Cees yéemoon na ñëpp boobaa jam jaaraama sibtu jaara te tali bi jokkale Touba Kébémer ci ak ayam lañ ko liggéey ci njëggu seer màggal gi it mooy ki ko woote tuubaa ba tey ku ne ñëw fii ba réew yu tey ba armeel it alxaaji Fallu Mbakke mooy ki ko miire doon ci sàkku barke téléphone it Cheikh moo ko indi indi courant boutique yi tas ñu jëndi forage ba jëkk am fa daarul man naan moo ko fi def ndox ma di xel ñuy naan marché Ocass moo ko fi def ci ak ayam ak gaar bu ndaw diglu ma toftal ci dëkkam moo sañ ci ndindi xayra des na bagoo ki xaayaan teg ci Touba neel maram aliya Touba Bobrel ku teew ci dëkk mi ñu fan la jéggal Touba Sourang Madina booba yi ñaar moo leen goroon fu ne mu dal fay jàmbar gannaaw bi it ñeent fukki daara ak ñeent goraat na leen sancam du raaf du gent noonu it la fonkee ay magam yam bokkuloon Cheikh Bamba fonk loon rakam yam nekk loon góor ña jigéen ña ku ne tuddee na la doom xeer la ci ñoom Cheikh Fallou daal kenn du moom seex si fi bàyyam bàyyi woon ñëpp la jël def leen xarit ñoom it ñu koy laaj si ndigal ceeg ayam commencé am tiis mbaa naqar ci ñoom nga jëm waa réew mi ñëpp daan ko wër da ko am ngërëm te am looleen xorom woyof ga tax na ku ko min dooju këram nit ku amoon baatin la woon ak xekkam rafet rafet ji ko tafan ko boppam mbaa xam ngi tax na foofi dem ci kër yi gis turandoom ngeen dama mel ci xol yi yitte juréem yi mosa am foo tollu dégg ñu naan suñu falu lañ ci wóolu moom daa ne woon ku gaaw ci faj ay xaajo kenn la mbàkke bala ay saak saajo Touba dëkk baayam la génnee àdduna tànneef ya sargal ko mu ñibbi aljana Cheikh Moustapha Fadilu moo ko wuutu gannaaw ba nag sëñ baara moo ca bootu tey sëñ aboo mii mu tuddee ndijaayam sëñ Mbàkke Mbuusa moo fi toog jotaayam yàlla fi sax te mucc moo ki rakkam bur yàlla sàmm leen te yokk leen ndam amina amina bi jaahi Bamba kay magi maam Ceerno sëñ Masamba jàng fi loolu tëwër jërëjëf Guèye na nga xam ne day day xol yëpp sa kilifa gii nekk ci sa ginnaaw day mook ay bokkam ñoom ñépp day seen xol seet na ci yow seen xel dal na ci yow na yàlla saako defal jàmm ci wax ci alaaji sëriñ gi tey sa dut manda yaa jël woon may yamba yu si xunaa xadim ñaajili woon birandar yow Seexuna Ahmadul Xadim ku ko gis Sëriñ Seexuna ngay jugal taxaw yéen bu tàgg ak bàkkaar ñaajili woon maa yomba yow Seexuna Seex Ahmadul Xadim yaay baay sa Mustafa اقتدي لو سكوري بلا كفور باب نزير منه في دين لو تربي بالاقتداب لو خطابي ما هتدين لا كريدين لكساني لك التجاي ما حجتي داي يا من شافاني يا من حماني حمل جنفاني بمحبي داي يا من سافاني يا من حماني حما جافيني بمهبدين أسب الصوتاري أسل يومري كاس الخيور بلا كدين أسب الصوتاري أسل يومري كاس الخيور بلا كدين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 almuraqi faridi zamanihi wa munqidi ahlihi wa bilaadihi alhamdulillahi hamdan kathira ibadallah laqad manna allahu alayna wa jamacana mujaddadan fi hadihi albuqcati almubaraka ixtifaan bi mawlidi rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa mudakaratan li siiratihi alaatira min xilaali xibbihi wa xadiimihi wa man nabacuu min manbacihi almubaaraka manbaci alxayri walrida manhali alrijali walawliya ayuha alxuduuru alkiram tafadaluu maci natadaarasu juz'an min xayaati najli alqadiimi wa xadiimi alxadiimi wa muriidi alxadiimi ya jamaa hal li an usammiyahu bi najli alxadiimi wa huwa man baaca bunuwatahu bil iraada ismuhu muhammadu alfaadal dalika fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadli alcadiim mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ naa mi nga xam ni moo fi toog jataayub sunu waajur wu sell wu tedd woowu di Alaaji Sëriñ Géey ñu ngi tàmbalee kàddu yi ci sant yàlla yàlla mi nga xam ni moo ñu dajalewaat ci barab bu sell bii ci bis bu màgg bii bisub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan muy tàmbalik sunu kàddu ñaanal ki nga xam ni moo fi am jataayub xaadim Moustapha di cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ngi ñaanal suñ ñu ngi ñaan suñ borom mu defal ko tawfiixi yàgg fi ñu ngi ñaan suñ borom mu defal ko tawfiixi mottali noonu ñu koy ñaanali Cheikh Mouhamadul Mountakha nag ndax ma nekk ci bopp yoon wi noonu lañ koy ñaanale Serigne Cheikhouna mii nga xam ni moo toog sunu wet ni nga xam ni nag mooy cosaanu bis bi mooy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ko sunu rak Cheikh Saalihu waxe léegi ndigal li jóge ci ku tedd ka mu histoire bu yàgg ba waaye ñu yeesalaat ko ci jàmbaare jamonoom di alxaji sëriñ Gueye moom nag dafa mel ni ren dafa tànn kenn ci njaboot gi muy Cheikh Mouhamadul Fadal mu duppee ko bis bi ngir jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weesuwul jàng ay jikkoom loolu lañ mën a roy ci moom dafa am lu mu am loo xam ni jagleeg suñ borom la ak jagle mbirum yàlla la waaye suñ borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama la yónni ci jaam ñi ngir ñu roy ci yow ginnaaw dañuy roy ci moom nag lañu mën a roy ci moom lañu mën a jariñoo ci moom buñ koy fàttaliku war naa bokk ci ñuy fàttali moom muy lu rëy te yaatu xaadim Moustapha dugg ci biiram ñun ñu seey ci biiram kon bu ñuy jàngale yonent bi sallallahu alayhi jàngale sëriñ Touba doy na sëkk ci ñun waaye jàngale sëriñ Touba dafa mel ni dafa yaatu dafa rëy kon jàngale ñoñam doy na sëkk ci ñun moo ne dafa mel ni jàngale ñoñam sax rëy na yaatu na waaye kenn ku nekk rek ñu jël ci ab bunt wala ñu jël ci ñaari bind yoo xam ni dinañ ko mën a yóbbaloo ba ba ñuy dellu siwaat Cheikh Mamadou Fadal may yi rëy na loolu kenn waxatu Cheikh Mahamadul Fadal juddu bi rafet na loolu kenn waxatu ko Cheikh Mahamadul Fadal mooy Sénégal loolu kenn waxatu ko waaye dama bëgg jël ci moom ñetti bind yoo xam ni bëgg naa ñu yóbbaale ko li ma waxoon daaw ci Cheikh Mahamadul Moustapha da ko bokk ak Cheikh Mahamadul Fadal ñett yi ma ci bëgg a dolli benn bi maa ngi ko jëmmale ci jigéen ñi bi ci des mu jëm ci ñëpp bu njëkk bi mooy waajur wa waajur wu sell woowu mu am mu ànd ak xayrul Mustafa waaye ju sell ju baax jooju nga xam ni kenn xamul lu mu doon mu ànd ak moom ak sell ga mu nekkoon ci biir xaadim Moustapha ak liggéey bu rëy boobu mu fa defoon ak noonu mu wuufe woon njabootu soxna Aminta Lo googu nga xam ni ñoo jiitu woon loolu bind la woo xam ni kuy jigéen war nga koo bàyyi xel bu baax a baax ànd ak sang ànd ak ku baax dafay laajit yow sa bopp nga waajal sa bopp ndax liggéey moo indi ak pay jigéen ju bëgg a jur sang ca barab ba nga nekk dañuy wax ni barke baay waaye liggéey ndeykat te kenn képp ku fi nekk yéene nañ la la ngay am ci sa biir borom kër ci sa ci sa néegu borom kër muy lu sell te set te tey loolu nag dafa am caabi dafa am bunt bu ñu jàngalee mag ñu baax ñii ñu jàng ñu jëlee ko ci ñoom nañ ko seet rek ba ba àdduna di àdduna ba léegi ku fi boroom borom tànnal baay bu baax tànnal na la ndey ju baax kon jigéen ju bëgg a jur ku baax dangay ngay jaar ca foofu nga xam ni fa la jigéen ñu baax ñoo ñu jaaroon ñu ngi ñu ngi jàngale soxna jaara buso moo ne sëriñ Tuubaa de fadlullaahi ngëneelu yàlla la kenn xamul lu doon ci lumu lumu yi la bokk waaye moo ne bi ko suñu borom di wàccee da koo jaarale ci lu sel loolu lu tuuti loolu lu jigéen loolu waaye lu fag loolu lu sagu loolu muy soxna jaara kon jigéen ju ne mënoo waat mukk fa nga nekk ni di nga jur xaadimul Moustapha ndax loolu faat na wees na mu ne surtout amati nabiyul Moustapha loolu faat na weesu na Cheikh Mahamadul Fadal dootu dikkaat ci jamono faat na weesu na Cheikh Mahamadul Moustapha dootu dikkati ci ci jamono faat na weesu na ndax ñoo ñooñu xaadimul Moustapha la leen defar te xaadimul Moustapha dootu fi ti mukk benn la woon kenn la woon kot ñu dong ñoo ko am waaye nag jigéen ju nekk mën ngaa waat ni fa nga nekk mën nga faa nekk kuy sang fa mu ne kon mooy leçon bu njëkk bi nga xam ni moom laay jël ci waajuram wu sell woowu di soxna Awa Bousso bu leen fàtte mukk ni Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak Mouhamadoul Amine Baara seen waajur wu jigéen teel la fay jóge soxna Awa moomu moo moo moo leen wuufoon kon noonu nga xam ni noonu la jigéen ñu sell ñooñu ànde woon nag Cheikhul Cheikhul noonu la jigéen ñi war a góorloo taxawu ci seen sëy yi ba suñ boroom dimbali leen ndax bari na coono yu njaboot gi nekk ci jamono bi ñu nekk dara tegu leen ku lu dul doxin wu ñaaw wa jigéen ñi nekkoon ci biir kër yi kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax li weesu weesu na waaye li nekk ci kanam mënees na koo dabaatal kenn ku nekk nga góor góorluwaat ci kër ga nga nekk ak kañ la booleel ngir sang yi suñ borom a ngi koy waajal te képp ko jàpp ni li suñ borom di maye maye woon démb denc na ko sànni na ko dootul ko joxeeti dafa mel ni ci ñu réer ñi nga bokk alaaji sëriñ Gueye wax na ni yat wa yat wa sunu borom joxoon Seydina Muusa la ca doon jariñe mu ngi fi ba tey ndax loolu suñu borom doywu ko dara la suñu borom joxoon Seydina Isa muy jariñ doomu adama yi mu ngi fii ci suuf ba tey xanaa loxo yu sell yuñ ko teg rek moom lay laaj loxo yu sell yooyu nag dafay jaar ci waajur wu sellal boppam fag boppam fagaru boppam kon muy bind woo xam ne barab bii li tax ma jël bind woowu jëmale ko ci soxna yi dama gis ni li ëpp ci liggéey bi ak sellaayu liggéey bi ak seen taxawaay ci barab bi dafay lu rëy loo xam ne sëriñ bi seetlu na ko ñëpp seetlu nañ ko ñu yéene leen kilifa yu baax yii fi nekk ak yii ñëw suba ñu ñu ñuy war a jiite àdduna ngeen yor ci jàmbar yooyu loolu nag dafa am lu koy maye mooy rey ci gaañooñu rey ci soxna yooyu soxna wa buso juddu juddu ba sell na ki ko yoroon sell na kenn xamul lu mu doon waaye moom ci boppam liggéey ba sell na kon nañ sell liggéey loolu mooy li njëkk ñaareelu bind bi ñun ñëpp ko moom muy muñ Cheikh Mamadou Fadal suñ ko waxee Cheikh Saalihu wax na ko léegi dafa mel ni bu ñu ko waxee rek tur wi day ànd ak ay xéewal ndax dafa bi mu bi mu toogee ba jumaa ji mat loolu mu wax leer na ñëpp waaye laata xéewal yaa ñëw ay laata xéewal yaa ñëw laata xéewal yaa ñëw Cheikh Mamadul Fadal lépp luy doomu adama di jànkonteel ci ay jafe-jafe ci xat-xati àdduna am na ci yoo xam ni sax sunu warmaal ko eggul ci ñu mën koo tudd ci jataay bi eggul ci ñu mën koo tudd nit ñi di ko dégg waaye lu doom aadama di muñ yaakaar naa ni muñ na lu ko ëpp kon nag loolu mbasin yu rafet yi nga xam ne moom lañuy moom lañuy juddu fekk sunuy waajur di ko sol nañu xam ni loolu dañ koo mujjee waaye njëkkewuñ ko seydina muhammad bi mu taxawee jabalu arafat wax waxam juré jooju ba mu noppee seydina omar mi nga xam ne moo ko gënoon a dégg ci àdduna dafa jooy ñu ni lan la mu ne ndax mat na te lu mat jeex lu mat rek wàññiku lay mujj kon basin yu rafet yi ak kër yu rafet yooyu nga xam ne ñoom la ñuy fekk sunu waajur yi ñu koy ñu koy tabax muy jekk bàyyi bo saay boo fekkee sa waajur rek na la wóor ni jaar na ci macc taxaar jaar na ci yu méttee métti waaye dëgërlu noonu nga waxee noonu la ko si sëriñ Seexuna mi defee dëgërlu di lekk eh, di lekk cere joo xamante ne kenn xamul lu muy nuru te man nga mën a lekk leneen di lekk eh, ni ñu waxee waxeeti ceebu ñebbe boo xamante ni yéeme na te mën a am leneen mën ngaa koo jënd foofu ngay jaar ak laaxi daqaar mooy jafe ngay muñ ku fi sanc ba barab ba ngay sanc nit ñi dafa ñëw lu ne dañ nga ko fa kon képp koo xamante ni ñi ñi ma koy njëkkee mooy ñi ma ko sañ a wax ñuy fekk seeni waajur ñuy ay kilifa ñooñu ñu ñoo war a njëkke mbir mi seeni waajur sëriñ Mouhamadul Habib mii sañc fii ay waajuram dañoo sañcoon ni barab fekkul woon ay waajur yu yaafus sëriñ Saliou wax na histoire bi histoire bi dafa gudd lu yàgg yàgg la waaye histoire sëriñ Mayib histoire wala sëriñ ngi yem ci sëriñ Touba dafa doy sëkk ndax dafa dafa dafa suur dafa dafa doy dafa mat moo tax waaye mënees na koo jéggi mu dem lu sore sori te lépp a sell lépp rafet mënoon naa yem lu ca ñooña waaye yëmu ca ñooña di wër di sañc dëkk di wër di sañc dëkk sanc dëkk yi ni mu ko sanc dëkk sanc yu naqaree naqaree naqare la nga ne yooyu nga xam ne moom la sëñ Modou Sow daan def nga yu mettee lu ne la ci sëñ Modou Assa sëñ Mor Assa daan daj lu ne sëñ Mor Assa daan daj kon du alal ju fi nekkoon du xéewal yu bari yu fi nekkoon waaye pas-pas bu dëgg bu wér moom la yoroon ak muñ te doyloo suñu boroom mi nga xam ni moo moo moo nekkal ñépp kon nag loolu dafay leçon boo xam ni dafa mën a dafa ñoo mën a jariñ tey mën ñoo jariñ suba damay wax ni li ñuy wax ci suñu kilifa yi muy lu rafet nañ ci jàng ñun tànk yi rëy na waaye nañu fexe ba buñ ci tegee nañ nañ nañ ci teg suñuy tànk rek buñ ci buñ ci tegee suñuy tànk dina dina sutux dina dina dina surux ndax tànk yi mag yaa ko gën a rëy gën a yaatu seen yittee gën a rëy gën a yaatu waaye buñ ca tegee suñuy tànk tegaat suñuy tànk tegaat suñuy tànk lu mooy tege ca yoon wa rek loolu nag kon muy ñaareelu bind bi mooy kenn ku nekk fa nga nekk nga góorgóorluwaat jaajiwaat te xam ni jafe-jafe boo man di jànkonteel waajur wi nga fi ki nga fonk ci àdduna mu gën a rëy jànkonte nag lu ko gën a metti te kenn dégg ko tuubaa gii kat nit ñi eggoon nañ ci kilifa egg na ci bu soxlaa ndawal waxuma waxuma euh, li ñuy rey léegi nag di ko kii waaye ndawal gu mu def ci biir cinam am na ci ñoo xam dañ daan dem ba guddi ñu ñu jaar ci biir yi tokkoor dem ci nit koo xam ni da yori tokkóor ngir sàkk fa loo xam ni dañ caa mën a def seen ci seen ci seen cin ngir mu soppeek loolu nag léegi yaakaar naa dañ ko war di jàngale buñ ko fàtte mukk dama koy wax lu bare bari ma jëmale ko ci waajur yi maye seeni soxna seeni doom ñuy jëm ci kër moo wax ni ñu ci bari ci ñoom bu ñuy may bu ñuy maye seeni doom dañuy seet ku tane seen bàyyi ñu may ko ko ma wax ne ñoom ñoo ñooñu war nañuy fàttali seeni doom ba ñu ñëw ci seen biiri kër yi bàyyi la ñu fa fekkoon te bari na ci ñoo ñoom ñoo xam ni ci ay pantere lañu wàcc ak i néegi ñax nga wàcc ci pantere ak i néegi ñax jur fay kuy yu ñëpp di bëgg bu fa nit ñëwee la nga war a seet ci moom mooy diine ak jikko kon yooyu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax ñii ñuy wax kilifa yu baax yi ñuy wax am na ci ñoo xam ni egg nañ ci wuti soxna ci seeni mbokk ñu lànk bañ leen koo may ndax yàgg ndax xool seeni mbubb ñu woyof du ma tudd ci du jaar ci tur ndax ñoo ñi ñu wormal lañ waaye ñooñu ña ña nangu woon leen jox seenu njaboot ñooñu ñoo juri kuy tey ñu jiitañu yat waa ngoog kon foofu la mbir mi jaar kon leen lu nekk dafa am bu muy jaar suñ borom nag lu ko neex mu def waaye am na lu nekk am na fu mu koy jaarale kon leçon ñaareel bi mooy ñu taqoo muñ ñun ñëpp koo fi gis mu dem ba sant bis bu cant gi doyee ba ñëpp ni lépp doy na man ma tiit képp ku ma fi gis muy ñoŋ ñoŋi moo tax na sànce yi bari sëriñ bi na sànce yi bari yi ndax dañ laa soxla nañu ko jàpp ñu xam ni li fi nekkoon jugu fi waaye dafa amul yoon yoon wa nag bu ñu fa jaaree la Sëriñ Tuubaa doon wax ni aw yoon aku ñal la am ñoo aw aw aw ñal boo ca jaaree loo waddal mën nga réer romb dëkk te doo ko yëg te loo waddal deesu ko for dab la jox la ko aw yoon nag lu mu yàgg-yàgg lu mu sori sori di nga bu dëkk walla nga dab ku la mën a wanub dëkk ko loolu mooy yoon ñaareelu bind bàngo ñetteelu bind mi nag ab tontu la boo xam ne ci ñiy wax ci jamono bi ndax jamono bi dafa ubbeeku léegi Cheikh Mamadul Fadal yaatalam eggoon na ci yërmande yàlla ji génnewu ci ku gëmul yàlla génnewu ci koo xam ni waxu ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu nag daf ko roy ci yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al wara ya hadiyan radda loolu sëriñ Tuubaa ko wax bi muy ñaan di tàllal loxoom suñu borom dafa xa daf da ko wóor ni yërmande suñu borom ñëpp xaj nañ ci yërmande suñu boroom ji ñëpp xaj nag lan moo tax aw nit taxaw ni yërmande suñu borom ji dangay ngay sol mbubb mu mel nii ngir man koo am da ngay da da ngay wuyu lu mel nii man koo am dangay ngay da ngay wax lu mel nii man koo am boo jullewul nii doo ko mën a am loolu kenn xamul lu mu doon te loolu moo xaw ci jamono bi lislaam ay jikko la boo ci génnee bàyyi fen lislaam nekkatu fa boo fa génnee wuruj lislaam nekkatu fa boo fa génnee tricher lislaam nekkatu fa boo fa génnee lu wax wax du lu nekk ci yow lislaam nekkatu fa innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq kon loolu mooy lislaam du leneen lislaam ay jikko yu rafet la aw nekkin la ab pas-pas la te bu leen fàtte mukk ni suñ borom suñ jaxate dégg naa nga wax ko waaye loolu arxuraan la suñ borom li muy wax muy jariñ doomu aadama yëpp waxu ko kenn ku dul ñiy gëm yàlla muuminu na bu waxee lu baax ba noppi muuminu la cay teg ñooñu ñoo ko moom kon ñooy borom pas-pas yu sell yu wér yi kon loolu lu mat a bàyyi xel kon nag loolu ñu ñu xam ni kon lislaam nekkul ci yooyu ñuy wax da ngay dégg koo xam ni dafay topp nit ñi boo nee diw sàngam mu ni déedéet barke diw mu ni déedéet boo ne nangam mu ni déedéet boo solee sa mbubb mu ni dafa gudd boo solee ndax moom dafa dafa war a gàtt naar bi nii la koy solee diw sàngam nii la ko doon solee diw sàngam nii la ko waxee woon boo demee ci téereb sàngam diw sàngam ak diw sàngam nii la ko waxee woon déedéet du loolu lépp Alxuraan a ngi fi te mooy sunu sëstal waxuma du waxuma nag waxi ku réer jataay bee may wut nekk fa di ko indi ay aaya ki nangam nangam déedéet li ma dama bëgg ñu dem ci essentiel li ëpp li am solo dëgg-dëgg mooy li yàlla soxla ci doomu aadama mooy xol yi xol bu sell te wér loolu la yàlla soxla xol bu sell te wér nag ci la suñ borom di defi leer xol bu sell te wér mënta am mukk te nit ki àndut ak ay jikko yu rafet yii bu àndee bu nekkee ci doomu aadama bi kooku kenn mënu ko génn ci yërmande suñu borom kon yooyu ñuy wax di ko jëmale damaa yaakaar ne sax jërta tontu waaw ñii génn ci rajo yi di wax ni pas-pas sàngam pas-pas sàngam nangamu nangam eh, loo loo wax li ñu ni la li li bokkaale yàlla li nangamu nangam ma ñi ko xamul sax ñoo nappalu far benn ñi ko xamul te dégluwuñ ko ñoo nappalu far benn lii dëgg kon ñetti bind yooyu rek moom laa bëggoon a tënk ci kooku nga xam ni kenn mënta waxtaanee mbiram ndax géej la goo xam ni dafa dugal boppam ci biir Xaadimu Mustafaa koo xam ni du taalibe kon looy wax ci moom Serigne Fallou du taalibe ndax moom nee na moom nekkatul ub taalibe déedéet loolu moo ko waxal boppam ñëpp dégg ngeen nee na moom du taalibe nee na du sëriñ du ab seex bu bëgg doon doon kiyam du doom ju bëgg a doon baayam kon booy waxtaan ci moom looy wax damaa xamul loolu di man xaw ma lu may wax ci moom su ma wax sëñ Fallou ci ci nan lay waxee sëñ Fallou mooy ki nga xam ni moo doonoon taalibe Sëriñ Touba déedéet moom nee na du taalibu Sëriñ Tuubaa da cay seey Cheikh lu nee na moom du doom du doomi Sëriñ Tuubaa ndax doo doon day bëgg doomu baayam te bëgguta doon baayam kon lu du ma du ma wax ci doomi Sëriñ Tuubaa kon ci lan lay wax waaw ci moom daa dugg ci biir yooyu noonu nga xam ni mooy lumu lumu yi Sëriñ Tuubaa yooyu ci la bokk ñu dugal ko ci loolu rek dama mës a dégg xa Alaaji Sëriñ Gueye mu bari xam-xam moomu te sëriñ bi dimbali ñu ci léegi ndax am na foo xam ne mënuñu fa egg waaye moom bu fa eggee day day seddal xol yi bëgg ñoon mu bàyyi ndax ñooñu dañ leen a war a xamale dañ leen war a xamle jamono da leen a soxla yi ñuy wax nii di ay tontu la ci maanaam léeg-léeg boo déggee nit ni la nangam nit mënu ko da nga naan waa léegi moom yàlla su yàlla suñ borom moo wax ni man maay def lu ma neex ci ku ko neex yàlla moo wax loolu du léegi est loolu est-ce que damay dama loolu ab tontu la est-ce que nit mën naa doon ab julit bu wér te génn ci biir pas-pasam yàlla faalun li ma yasha dama ne ndax nit mën naa doon ab julit bu wér ba pare génn ci biir gëm-gëm ak pas-pas bi am suñu borom faalun li ma yasha mooy yàlla mooy def lu ko neex ndax loolu mën naa mën naa am ndax nit mën naa gëm yàlla ba pare gëm ni yàlla moom am na lu mën a def am na lu mu sañ te def am na lu mu sañ a def ndax loolu mën naa am bu fekkee ni nag kon gëm nañ ni yàlla moom faalun li ma yasha lu ko neex lay def ci koo neex la koy def kon ni sëriñ ni def sëriñ Tuubaa dañ koy bàyyi noonu ni yàlla def gaañam yi ñu bàyyi leen noona li nga mënut nag nga xam ni mënoo ko yow la yow la concerné yow yaa ko mënut waaye li nga mënut te nit nit mënu ko loolu nag wedd yàlla mënu koo weesu foofu la tàmbalee yàlla leen yàlla musal ci loolu ndox ndax yéene wuñ kenn mu wedd yàlla ndax yedd wedd yàlla fa muy yóbbu nit yóbbu yéene wuñ ko kenn kon loolu muy ñetteelu bind bi li ci des nag kon muy baatu kaddu kadduy cant ak i ngërëm kadduy cant yi dañ koy tàmbalee ci ñaan ñaan gi nag ñu ngi koy jëmale ci sunu kilifa gu tedd gii fi nekk ci biir dëkk bi muy sëriñ Mortalla yàlla na yàgg yàlla na wér fekkee moom na fekk lépp loolu nag kuy ñaan suñu borom comme léegi waxoon nañ ni yàlla moom lu ko neex lay def kon ñu ñaan ñu ñaan loolu yàlla na fekk lépp da des mooy ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañu daan bokkal bâche bi ñu daan taaral barab bi léeg-léeg kenn wàññiku loolu nag ñu fàttaliku suñu borom seerees mbay dàgga farasu nu nag yàqwaay ngo beddi na ko sëriñ tàkko mbakke moom sëriñ fallu bi ngay dugg léegi la sëriñ mu Moustapha mii mu moom Alaaji sëriñ Gueye doon wax ca sa sang bu baax ba naa kenn xamut lu mu yow nag mbakki lii moom jaaxal nanu maanaam mbirum sëñ Fallu jaaxalaat nanu jaaxalaat nanu ndaxte kii la yebal mu fekk fii doomam mu bëgg a seere ba xam lii li mu doon ñun de jaaxal nanu ñun de mbàkki ñu la koy laaj bu nu pee salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi nuyu alaaji Cheikh Tàkku Mbàkke dafa mel ni moom jataay bi miin na ko barabu Cheikh Mahamadul Fadal la ndax barabu Cheikhul Xadim la kon sëriñ bi kàddu yi sant rek ci lañ tolloon dañu waxtaan loolu suñ Fallu nag ñu wax ni mënuñu cee waxtaan ndax xamuñu lu mu doon ndegam moom mënuñu si ndax moom nee na du talibe du sëriñ du seex du doom ju bëgg ba doom baayam kon man dama xamul ci nu may waxtaane ci moom moo tax rek ma jël benn baat ci moom rek mooy xamoon naa ni ku mën a muñ la ma wax ne nañ nañ ko nañ ko bu jubu jubuti ñu jubbanti ko ba loolu rek lañ ci jël muy leçon boobu daal mooy kenn ku nekk nga fasuwaat te xam ni euh, li nit ñi bëgg muy lu baax yombut dee su ko wute ci ay tappaleek i caaxaan da nekk ci dëgg rek te nangoo nangoo muñ suñu borom dina la nattu waaye bu natt yi teggi ko rek cant rek a cay topp inna baadal usri yusra kon kàdduy cant yi nga xam moom la sëriñ bi euh, santoon ñu jëmale ko ci njaboot gi ak ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal bis bi kàddu yooyu rek lañ bëggoon a eggale ci teewaayu sëriñ bi dafa mel ni kon cant yi cant yu jóge ci xol la ndax am na seede kon cant yooyu ñu njëkki woon ko ñaan ñaan gi dañ koy dégtalaat sëriñ bi ngir ñaan gi dañ ko dañoo ñor muy sunu kilifa yu baax yii fi nekk sëriñ Mor sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko sëriñ Seexuna mii nga xam ni moo fi nekk di sunu sag moom mu sax rek waaw te te mbir yi di gën a neex gën a law gën a yàgg loolu lañ koy ñaanal chantier yu dul egg yu dul egg mukk kon li njëkk ci cant yi mooy ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal barab bi ñooñu nag damay tëb ñi nekk ci dëkk bi jiital ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal tund wi ñi fa ñëw tey di waa Màkka Saar wax naa leen ko léegi ni leen xam ngeen ni ñoo bokk barab bi ni ngeen jàppe kilifa gi it gis nañ ko loolu dafa mel ne ñun ngeen ko defal waaye du ñoom rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp sëriñ Xaadim tudd leen léegi waaye sëriñ bi bëgg ñu jaaraat ci ngir mu xam ne li ñuy wax li ñuy wax ñor na ko moo tax ñu leen di tuddaat muy waa Kokki waa Màkka Saar waa kër Maxaali waa Kase waa kër Demba ma lay waxtu nekk lañ koy yëkkati te pas-pas mu am ci dëkk bi rek moo ko waral ak euh, yéene ju mu am ci barab bi kon siin dëkk yi nga xam ne ñoo wër dëkk barab bi yëpp dafa mel ni mbir mi seen mbir la kon loolu sëriñ bi gis na ko du tey rek du bisu gàmm gi rek waaye ci lépp lu fi man di xew kon cant yooyu bis bi nga xam ni mooy bisu badar bu ñëwee war naa jóge ci làmmiñul sëriñ naa mu jëm ci ñëpp ñëpp yëg ko dëkkandoo yi dëkkin wi rafet na jàppin wi rafet na kon sëriñ bi mu ngi leen di seedeel kàddu cantam waa Badar ñoomam mbir mi xëy na dañu leen di sant de ngir ñaax leen waaye ñoom it dafa mel ni barab bi bi fi sëriñ bi di jóge ñetti nag ba ñeent la daan rey waaye ci ci ci waañam lay nekk ñëpp ci lañ daan xewloo tey na dafa mel ni bi ma bi ma bi may dox ba dajeek moor caam yeew nag ñu ne ma ibra caam yeew naw nag sëriñ badar caam yeew naw nag li li sama li li li maanaam euh, fi sama xol egg ci sedd mënuma ko wax nit ñi waaw ndax kon xam nga jég jëli naa ñi nga xam ni ñoom gëm nañ ni mbir mi seen mbir la waaye dafa mel ni kon ñii xam nañu li ñu ànde woon fàttewu leen ko ñu nit fàttewuñ ko yàlla na yàgg ba booba ba booba ba booba ba booba ndax ci loolu lañu ànde woon dañuy banga ak sëriñ Mayib ànduñu woon ci ab tëgg ak nangam sëriñ bi dafa amoon lu muy dox kii am bëgg loola muy lislaam ndax sëriñ Mayib du ànd ak keneen kenn ci lu dul lislaam kon ci loola la duggee woon ci moom kon bu leen ko fàtte mukk ñu ànd ñu ànd ci loola ba booba ba booba li ci topp mooy sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekk ma jiital ci alaaji Cheikh Takku Mbakke mii nga xam ni moo nekk sunu di wëla réew sëriñ naa di sëriñam di xaritam wëla réewoowu ak xaritoo googu ñun ñëpp mu dugal ñu ci loolu nag kàddu cant la yoo xam ni bu jugee ci moom war naa jaar ci ñun waaye kenn ku nekk amel na la ko ndax yemul ci seen diggante yéen ñaar rek loolu nag njaboot gi yëpp xam nañ li may wax loolu li muy wund it mooy dafay samp boo xam ni benn la rek ñun ñëpp ñu xam ni lenn la woon rek mooy li Serigne Saliou doon wax léegi loolu loolu moo jëmmal lépp te loolu nag lépp dafa delluwaat ci kenn ka muy Xaadim Moustapha mi nga xam ne mënees koo jéggi mënees koo ronu mu xam mëneesuta xam nooy nooy def ak moom boo demee ba egg si moom da ngay taxaw kon ñu dem ba ci moom ni rëkk taxaw duñ ca duñ ca boole dara duñ ca rax dara wutiwuñ leneen lu mu amul doyal nañ sëkk kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu sëriñ bi matul nag waaye nañ la sant sëriñ am sa jóge na fi léegi di sa mbokk moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon jataay bii nga toog moo ko toogee woon léegi dafa mel ni moom doyal na waaye dafa mel ni rek du ngeen ci doyal ñu ne duñ ci doyal bu ñëpp ñëwoon rek ñu ne duñu duñu doyal mukk kon sëriñ bi mu ngi mu ngi sant sëriñ moom mu nga xam ne moo fi nekkoon te bokk ak ñun bis bi te xam naa xat-xat yi nga xam ne ci la nekkoon waaye terewul bis bi jaral ko loolu sëriñ Abo sa kilifa xam na ne di nga ñëw waaye ñor gu ko bis bi ñor moo tax mu jiital sa doom muy sëriñ Abo jiitu na la fi te doyoon na sëkk ñëw na fi teewal fi sëriñ Abo sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Abdul Ahad mu ngi ci jotaay bi miin nañ ko fi di wala réew sëriñ naa waaye di jëmmal di taaral bis bi sëriñ Abibu niñ ko waxee léegi rek duñu tàyyi ji di ko wax euh, ndax kóllëre gi dafa rafet waaye kóllëre noonu ko sëriñ am sa waxee woon ñaar a koy dox bu ko kenn di dox bu tàyyee bu toogee rek mbir ma dog waaye mel na ni moom lépp nag ci mbir mi sax moo koy dox far benn eh, sëriñ Baara ak sëriñ bi benn la kon ñoom ñëpp rek cant gi di dugg ci biir cant googu sëriñ Mamor sëriñ Moustapha sëriñ bi dafa maa wax ni sax mën nañoo wax ñaan nañu rek bàyyi ñu ci des waaye ku ma ci fàttewul saw tur rek dinaa la tudd waaw kon sëriñ Abibu ak ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax sëriñ aboo moom Cheikh Sidil moom sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu ngi fi moom yàgg nañoo bokk ak moom jataay bi ci yeneen ak yeneen kon moom it kàddu cant mën naa jóge ci sëriñ bi dem ci moom waaye ay doomam a ngi fi sëriñ fàllu Mbacké moom Alaaji Baara mu ngi fi sëriñ Abdou Lahad mu ngi fi sëriñ Abo mu ngi fi euh, ñooñu ñëpp sëriñ baa ngi fësal ay kàdduy yu cant ak yi kàddi ngërëm jëmmale ko ci ñoom sëriñ Cheikh Ndiaye Joor mu ngi fii ci barab bi moomit it ànd ak sëriñ Modou ak ñi mu àndal ñëpp kon sëriñ bi gis na seen teewaay sëriñ Cheikh Mbakke mu ngi fi moom it sëriñ Aliou Guèye di sunu baay moom ñoo bokk bis bi waaye dina ko jëmmal jëmmalin wu rafet kon moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax sant ko ci lu ñu bokk dafa mel ni sax moom moo waroon na sante sëriñ jaxate noonu mu ko waxee sëriñ Moustapha xaadimul xadim noonu mu ko waxee rek kon noonu la yàlla nañu yàlla defal tawféex ba loolu nga xam ni lu sëriñ bi def rek lu yàlla def ci jaamam ñi ñu nangu ko sëriñ Abdullahi Silla moom Serigne Mbacke Sylla moom it mu ngi fi euh, monsieur le maire moom mujjee la ci kàddu yooyu barab bi dañ koo bokk Serigne naa nekk fi di suñu kilifa nga bokk ak moom barab bi ni ko jàppee nag yëg nañ ko barab bi nag xam nga li ko li ko sanc barab nit bu biitee barab fenn fu nekk xam na la fa war a nekk la fa yell ndax loolu moo tax ñu wuti maire bu dul woon loolu mën nañoo yem ca préfet ba wala ñu yem ca gouverneur ba waaye dañoo bëgg ñu gën a jege population yi Kër Madiop ak Badar nag bu fekkee ni Badar gii ñuy wax foofa la foofa foofa la sëriñ bi mu ñëwee jege jege Kër Madiop gis ni foofa la fa nekk jubawut ak li mu yor mu ñëw fii kon yéen waru leen a umpale Kër Madiop waru leen a umpale Badar gii kon kàddu yi dégg nañ ko waaye dañu leen ñaaxaat ci barab bi ndax xam ngeen li nga xam ni moo yitte ji fii moom lislaam ko san sanc moo ko samp moo ñor moo ñor sëriñ bi li fi nekk nag mooy jàng ak jàngale ak yar njaboot kenn ku nekk xam nga ni ku yorug njaboot am na lu la ca war kon bu ngeen di am lu ngeen di def taluñ loxo kenn nag ndax yàlla rek lañu yaakaar waaye barab bi dafa bokk ci barab yi dafa bokk ci barab yi kon li ngeen di def ci barab yëpp li ngeen fii def yëg nañ ko waaye na ngeen fexe ba seen loxo gën a dugg ci barab bi ba ñëpp yëg ko loolu nag du doon seen sag yéen rek waaye day doon sag ndax fii dañ ko war a yëg ñëpp dañ ko war a xam barab bi kat bari na ñoo xam ne boo leen fi invité bu ñuy bu ñuy ñëw duñu xam nu mu mel bu ñëwee ba egsi nag ba toog ci tànt bi dinañu xam ni ah ndekete ndekete ndekete dafa mel ni da ngaa jóge ci benn dem ci ñaar fukk ndax day kawe seen njort tur wi ëpp na jëmm ji waaye jëmmi biir ji ëpp na jëmmi biti ji kon na ngeen bokk ci ñiy jëmmal jëmmi biti jëmmi biti ji loolu rek mooy sunu kàddu sunu diggante ak yéen xam nañ yéen a ngi ciy def li ngeen man te xam nañ it décentralisation bi indi na lu compliqué ci yéen waaye la ngeen man ci seen kattan lu muy tuuti tuuti nañ yëg seen loxo ci barab bi te bu ngeen ko defee du ngeen ko rëcc ak barab bii ak barab yu mel ni ñoom ndax ñii fi nekk kat di ay tuut tànk état bi moo leen tax war a taxaw te dafa mel ni mbir mi dafa féete bor dafa am ñu ñuy defal am ñu ñu bàyyi ñi bëgg jàng diine bëgg jàng alxuraan bëgg defaru ca na mag ñi defaroo dafa mel na dañu leen bàyyi fële li alal yi nekk ci réew mi ñoo ko moom nit doomi réew mi ñoo ko moom te nit ñi nag jàngi nañ fii lañ jóge badar gii ñii jóge ñii jóge Kër Madiop ñii jóge feneen ak feneen yow mii foofu nga jóge jàngi nga ba sori ñi bisiwaat kon nit ñi xam nañ ñi fi nekkoon ñu leen di lëndëmal ñëwaat nañ fii yor lamp bët leer nañ kon alal yi fi nekk xam nañu ñoo ko moom ñoo ko dajale kon nañ ko delluwaat ci biir doomaadama yi nañ ko delluwaat ci nit ñi te nit ñi nag lañ leen di dimbalee mooy seeni soxla am na ñuy soxla soxlawuñu loolu li ñu soxla mooy li nga xam ne état moo ko mën a def barab bii kat ku fi ñëw di nga am ay coono loolu état moo ko mën a def loolu kon nañ ca jéem lañu man courant ngi fii Kër ma Madiop barab bii xam ngeen li fiy daje bari néew na ci gox bii nga jiite barab bu mel nii bu mbooloo mu toll nii di daje bu dul dara lu dul sek bu dul sec bu doon bu dul question wu sec bu dul dara lu dul sécurité rek jar nañu investir alal ju baree bari indi ko fii ci dëkk bi ngir courant am fi ak leneen ak leneen kon loolu nag ndegam yaa fi teewal ñoom ñi ci des ñëpp gisuma leen yow lañ koy yóbbante boo demee dajeeg préfet na nga ko ko wax préfet bu ko mënee jàllale keneen mu wax ko ndax loolu kat yitte la ju war a am ci dëkk bi bu ko fi deful nag ay yeneen i loxo dinañ ko fi def loolu nag waxuma la yow waaye état bi laay wax ndax li may wax nii damaa xam dañ koy filmer te ñëpp koy def buñ ko fi deful ñoom ñeneen a ko fi def ndax loolu wóor na mën dina fi am bi àlla sëriñ Gueye di taxaw fii ñëpp di yor yori sàkket mu taxaw fii ni fii dinañ dem ba sàkket génn fi ba gaa yu baree bari seen i pas-pas eggoon na ci ñu weddi ko bi mu fi jiwee léegi fukki at ak nangam la yaakaar naa ni léegi mu dañ fi waaw kon nag li def lu fi dindi loolu moo fiy def leneen nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi leen di sant baax a baax na sëriñ bi kàddu yi nga euh, jëf ji ngeen def muy tollook seen man-man euh, gis na ko bu baax a baax kon ñu ngi leen ci sant bu wér a wér a wér waaye lii ma lay wax kàddu la yoo xam ne dañu bëgg ngeen jàllale ko ba ñi nga xam ne ñoo yor kàttan gu ëpp loolu ñu indi ko courant bi ta ñëw ba Kër Madiop ñu bàyyi fi Badar bu ñu ko fi indiwul ñun dinañ jël sun alal def ko fa te loolu kat nag yaakaar rafete noonu waaw moom bu soobee suñu borom dina fi am noonu rek lañ koy waxee kaddu yi nag léeg-léeg du du neex lool waaye noonu lañ koy waxee dina fi am léegi nag dañoo bëgg mu jaar seen loxo ndax loolu tawféex rek la mooy tawféex yi sëñ tawféex jooju sëñ Muntaxa di wax kon kaddu cant yooyu mu ngi jëmaat ci dayre yi nga xam ni ñoo fi nekk daayira Dakar daayira bi nga xam ni mooy ahlu badar shérif ak ñi mu àndal jiite ko daayira Touba daayira ahlu badar Kaolack daayira ahlu badar Tëngéej daayira ahlu badar Badar daayira ahlu badar Kër ma sàmba ak daayira ahlu badar yépp ak képp koo xam ni soppe ahlu badar nga sëriñ bi dugal na ci biir dugal la ci biir cant googu daayira ahlu badar ba nekk cees te sëriñ di ci def taxawaay bu rafet ñooñu ñëpp it ci biir cant googu lañu dugg ak ñi ma tudd ak ñi ma tuddul te ñu bokk ci biir daayira li may tëje nag ci cant gi li may tëje nag ci cant gi mooy mbokk yi mbokk yi nag li tax ma mujj leen mooy dañoo bokk mbir mi mbokk yooyu ñu njëkkee ci waa kër sëriñ Abdoulaye Guèye dégg ngeen leen fi dégg ngeen leen fi léegi bi sëriñ Saliou di nettali histoire bi dafay xam naa jataayu xataayu jataay bi moo tax waaye mën nañ ci wax lu yaatoo yaatoo yaatoo te loolu dafa mat a wax dafa mat a leeral ndax ñi fii ñëw di fi mën a yóbbaale dara sëriñ laay bokkoon ci njabootu sëriñ Mayib waaye samp sunu borom rek moo am solo njabootam googu mu yor nga xam ni génn nañ fii sax dem lu sore sore ñoom ñëpp koo ci dajal ndekete ci loolu rek la yëngatu muy lislaam jooju nga xam moom la sëriñ bi sëriñ bi doon yëngatu nga xam ni koo ci gis sax bëgg fonk bëgg bokk ak moom kon loolu dafay samp bu wér di samp suñu borom sëriñ bi yëg na ni yéen a yéen ak moom yéen a bokk bis bi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax li ci topp mooy njabootug sëriñ Mortala sëriñ Moustapha jiite ko sëriñ Xaadim nekk fii di chef de village bi ñu ñaanal ko suñ borom dëgëral ko taxawal ko ndax moom kat wétal la ci barab bi moom mii bi fi sëriñ bi nekk néewaan nañu xamoon ni sëriñ Mortala moo ko jur ndax ni mu ko defoon fu mu daan yónnee moom lay yónnee gàmmu gi fi sëriñ bi mujjee gàmmu ci zahir maa moom la boole ñu toog mu ni ma gan ñi fu ñu dugg yéen leen fay dugal nga xam ne ku ñëw xaw ma leen moom mii moo leen xam mooy ñëw ni ma diw sàngam ñu ut ñuy tuñ tuñu ut fu ñu leen dugal te boobu kat ñaari néeg doo nga fi nekk waaye ku fi ñëw dinañ fexe rek ba teraanga am ba ba ba nga delluwaat nga xam ne ñu bari bu ñu ñëwee ñaari minute lañ fiy def duñ mën a am fuñ toog ñu génn dellu ba mel na ni suñu borom mu ngi saafara mel na ni eggagul fa ñu fañ ko bëggee waaye mu ngi saafara kon moom it nañ ko ñaanal suñu borom dëgëral ko cant googu ñu koy sant it njabootuk Serigne Tayba Serigne Cheikh jiitu ko di ko sant njabootuk Alay sëriñ Gueye ndax mën nañ leen sant sax waaye xëy na rafetalu Serigne bi rek ci lañ koy dugal. kon ñu ngi leen sant bu baax a baax njaboot googu nag soxnaam yi doy na ci sëkk aw tur pas-pas bi ak ak yéene ji ku ne xam nga ko loolu nag nun réew mi dafa am nu mel dafa tuuti lool dafa tuuti da ngay dox ba yàgg rek diw ni la ah diw sàngam diw xam naa diw sàngam kon yàlla nañu yàlla dëgëral ba ba ba tax yi rafet waaye soxnaam yi jataay bi dafa rafet Touba dafay dëkk bu doy waar ndax dëkku sang la dëkk ñu nit ñu baax lañ nekk nekk fa jigéen jaxasoo nit ñu baax ñi ba ñu lay tudd fu baax fenn fu nekk fu baax fu ne boo fa demee nuyoog sëriñ bi bu ngeen yàggee jaxasoo mu xamanteek soxna amité lu baax rek la ñu xamante jëfalante lu rafet kon loolu cant googu war naa jóge ci sëriñ bi jëm ci yow ndax bu meloon neneen mu jaaxal ñu te du du mën a toog fii jataay bi nag gis nga li ko neexal jataayam bii mu am fii ci Badar li ko neexal mooy njaboot gi ñu ci ëpp ñi ñoom ñëpp ñu ngi ci lañ war a ne yàlla na yàgg waaye nag soxna bi soxna si jataay bi rafet na loolu foofu nga nekk yàlla na yàlla na yàlla na suñu borom dëgëral foofa loolu nag ñoom sa sa sa rakk yu jigéen yëpp ñoo ko moom ñu ci nekk ci kër ak ñu ci nekkul ci kër ñi ci nekkul ci kër suñu borom defaral leen borom kër yu baax yoo xam ni li ma doon wax léegi nag dama ci def exception ñoom nag dama bëgg ñoo xam ne dañu mën a defar liggéeyal Xaadim Mustafaa ndax ñu yor leen ndax ñoom dañoo am yéene yu rëy day góor ñoo xam ne dañoo yor taxawaayu taxawaayu dañuy jigéen ñi yor taxawaayu góor su ma leen waxoon ñoom ñii kenn ku ci nekk pas-pas bi nga am ak liggéey liggéey bi nga def ci barab bii gàmmu gii li nga ci def ci taxawaay day mel nii am na ci ñun ñoo xam ni liñ li ñoom ñii liñ ci def ñun defuñu ko ci kon seeni pas lu rëy la Serigne Ousmane sëriñ bi wax na ma ni loolu nga xam moom ngeen di sàkku may na leen ko loolu nag la ma cay njëkke mooy man maa koy jiite luñ cay def maa koy def ku yor sa dërëm na nga ko téye bu soobee suñ boroom nun noo koy ganale waaw sëriñ bee jàpp bisam